ngay Joy nit ñi nekk sa pegg di ree ngir mbégte bi nga xam ne gansi nga àdduna war naa xawlaka yi daxakuuna surura fajhad li nafsika an takuna ida bakaw fi yawmi mawtika daxikan masrura na nga farlu nag ba kerag yetu boy dem ah, bi nit ñi di joy yow na fekk ngay ree ah, fi yawmi mawtika daxikam yow fekk yow masruran ngay ji bég wala sidna ali di wax ne kana sidna ali yaxul ajaba li hasihi dunya allati ah, jaat bayna bukaa ayni bukaa un minni wa bukaa wa bukaa un alayya nee na maa ngi yéemu ci àdduna boo xam ne dafa nekk ci ñaari mbir mooy kera ba ngay judd di jooy ak bañ lay jooy maanaam bukaa un minni wa bukaa un alayya kera ba ngay jooy sa boobu ak kera bañ lay jooy kon àdduna mu ngi noonu du kër kon loolu la ñu noonu tey wasalaamualeykum wa rahmatullah